am na ñu bari seytaane noot na leen ba ñu am ay xel yu bon bëggam ne war nañu mën a jaamu xerem yi jabarkat yi ak seetlikat yi wante ñi gëm ci Jésus amuñu benn tiitàng ci xel yu bon yi te waratuñu jaamu xerem wala ñu dem ci jabraankat wala ñuy sànni petaaw loolu yépp ci seytaan yi la jóge nu ñu war a def kañ dañoo war a ñaan suñu boroom ci ndimbalam ak kattanam te dinañu aar